jërë ngeen jëf mbokk internet moom Karim Wade doomu njiitu réew ma fi woon di Abdoulaye Wade daal mënees na koo xaarandi fii la ci réewum Sénégal fii lekk fukki fan ak juróom loolu di kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di coordonnateur départemental bu parti bi di PDS fekk baax foofu ca Kolda moom nag mu xam ne ne ñu ngi préparé bu baax jamono jii li nga xam ne moo di ñib si seenu candidat di Karim Meïssa Wade euh, moom mi def annonce bi ni mel nag nekk aljuma jile 25 août di secrétaire général de la fédération départementale bu parti démocratique sénégalais foofu ca diwaanu Kolda di wuyu ci turu Ndiogou Dème moom nag euh, daal euh, bu ñu sukkandikoo ci sunu naataango nekk ci emedia point sn ñoom nag euh, ci seen correspondant ba nekk sur place la yëgatee lu nu mel moom nag di préciser ne ki nga xam ne mooy Karim Wade dina dellu ci file ci réewum Sénégal file que fukki fan ak juróom retour bu Karim wala sax Wade fils jamono jule kon mënees naa xaarandi ne gannaaw boo xam ne recouvrer li xam ne mooy éligibilité mën a nekk candidat ci présidentielle yu vingt cinq février deux mille vingt quatre moom ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall gannaaw bu ñu euh, promulgué loi bi nga xam ne nag mooy la loi portant révision code électoral nag mi nga xam ne moo tukkee ci dialogue national bi voté ko ci assemblée nationale ñu daal di koy wala sax njiitu Macky Sall daal di koy euh, promulgué moom Karim Wade bi nag retrouvé li nga xam ne moo di éligibilité mën a nekkaat candidat euh, bu ñu sukkandiku ci ki nga xam ne moo di Ndiogou Dème rek mënees naa xaar di ñëw fii ci réewum Sénégal fii fukki fan ak juróom moom ex maire bu Ndakaar nag ak nga xam ne. moo di doom ci ancien président Abdoulaye waat ni ki mille ba 2012 ñoom nag dokkuñu woon euh, gannaaw condamnation yoo xam ne moom lañ leen euh, daano ci ay mbiru wuute euh, ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ci lu jëm ci 15 avance kii di Karim Wade nag bokkoon ci enrichissement illicite ñoom nag dañ neen daal di génne woon ci li nga xam ne moo di présidentielle yu 24 février 2019 fii la ci réewum Sénégal waaye nag ki nga xam ne moo di njiitu Macky Sall nag ma gagné woon élection yu ni mel moom. gannaaw euh, li nga xam ne moo di conseil constitutionnel bu mu rejeté dossier de candidature yu 13 euh, janvier 2019 yu Karim Wade ak Khalifa Sall euh, moom ñoom ñaar ñi ne nag fi mu toll nii daal di retrouver li di seen éligibilité gannaaw modification yu am ci code électoral bi ba ñu promulgué loi ba moom Karim Wade nag ñëwam daal di samp wala sax laaj ba samp mooy ana kenn lay dellu ci fii la ci réewum Sénégal su nekkee moo nar a nekk candidat bu PDS ni mu ko nekkoon ci atum 2019 laata ñuy rejeté li nga xam ne moo di euh, candidature ci fàttali rek PDS Kolda ñoom la daal dinañuy euh, amal euh, li nga xam ne moo di installation bu bureau fédéral bi rencontre bu mouvementé la woon nag benn bataille rangé sax am entre li nga xam ne mooy libéro yi ak ba jur fa sax quinze blessés ñoo xam ne sax jamono jëlee ñu ngi ci état bu grave mujjee fa am waaye nag eh, am benn soxna soo xam ne moom daal na ci am li nga xam ne moo di benn fracture eh, bu ñu sukkandikoo ci eh, journal wala sax taskatu xibaar yi nekk fële ca média point sn des xaar ne nag fan la wanante ni bu jëkki gëtam mbirum Khalifa Sall sax Karim Wade mi nga xam ne nag bu ñu sukkandikoo ci njiital fédération départementale bu parti bi di PDS bokk fële ca Kolda mu ñu xamal ne nag file 15 jours mënees naa xaarandi dellu suk Karim Wade file ci réewum Sénégal.